jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun ci wasaare TV cant ak ngërëm ñeel na leen tey nag dañoo dalal suñu kilifa goo xamante ne nii xam-xamam dafa màcc lool ci wàllu ñaan mu nekk sëriñ boo xam ne kenn dootu ko présenté ci petit écran bi mu def Sénégal def États-Unis euh, def Inde def euh, ay pays yu bëree bare bare bare yoo xam ne dem na fa sàkk fa xam-xam am expérience ci ci domaine bi mu nekk euh, ñu koy wax Serigne Moussa Sow Serigne bi mi ngi lay ahousubillah min sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim allahuma salli ala seydina muhammadin wa ala alihi wa sahbi wa sallam taslima waaleykum salaam wa rahmatullah nuyu nañ ñëpp ziar nañ leen ñaanal leen leen jàmm ak tawféex yàlla may ñu gudd fan ak wér-gu-yaram ak mujj bu rafet yàlla may ñoo xéewal àdduna ak àllaaxira si xorma rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sëñ bi soo boo ñu mënoon a tënkal euh, li nga xam ne nii moom ngay yëngu moom mooy sa métier man nag bu dee mécc boo xamante ne jàng naa ko dama doon jàngale dama doon jàngale ba ma jàngee ba xam xam-xam kenn mënul jàng ba pare dama jàngee ba xam yenn mbir dama toog ci daara ji jàngale ba ma fa jàngale ay at ma sàkku juwaat xam-xam ci wàllu jàngal ay muuma dama doon jàngale ay muuma nekk naa jàngalekat ba nekk ci formateur koo xamante ni damay li ñuy wax langage des signes eh, arabe di ko wax luxatul isharat anglais yi di ñu koy wax sign language def naa ci ñetti langue yooyu yëpp ak ak hollandais langage des signes moom laa njëkk jàng ndax benn tubaab hollandaise moo ma ci doon formé ma jàngale ci ba. ba nekk formateur may jàngal ñiy jàngal moomay léegi xam nga lépp loo xamante nag yàlla da koo def ci yow buy ñëw ci yow doo ci mën dara loolu taxoon am na jenn jamono yoo xamante ne nag ma jékki-jékki rek bàyyi loolu fekk li yàlla namm ci man namm na ko ci man ba pare tajril umuru alal maqadir euh, euh, mbiri àdduna bi dafay dox ci ay raay yoo xamante ne ndogalu yàlla la tudd kon nag li yàlla dogal ci yow mënoo koo bañ dañ ma doon fay nag xaalis bu bari waaye ba jotee nag pour ma toog euh, def li ma fekk nii ma koy def dama toog euh, di ko def nit ñi nag li taxoon tax euh, ma gën cee bàyyi xel dañ ma même fi ma doon liggéeyee dañ ma doon woo diw di dafa am problème boole naa ko ak yow nga ñaanal ko si nangam diw dafa am problème bii wala nit ñëw ci man man lii laa soxla dama demoon ba nga xamante ne sama demaa occupé woon bu ma waree liggéey sax nit ñi ñu ngi may woo wala ñuy ñëw fi ma nekk xam ndax dañ la koo xamee woon ñu xamee si say wayjur ñu xam si say maam eh, te ma nekk taaw bi nga xam ne dañ koy gën a yaakaaree ci man doon nañu gis ne man maa doon ànd ak sama maam te yàlla mayoon ma ci daal depuis ba ma nekkee xale lu ma wax nit rek da koy gis loolu moo taxaw nit ñi ñi gën a jëmee ci ci loolu muy ñëw ndànk ndànk ndànk ndànk ba mënatuma koo boole ma xam ne daal jot na jot na ma euh, ma toog waaw ba ma toogee it tooguma nii rek di kii maa ngi demaat di gëstuwaat ci dëkk yi nga lim lu mel ni ay Inde yeneen dëkk-dëkk yoo xamante ne dinaa fa yokkee sama xam-xam te yooyu yëpp rek dama koo xamoon dëkk bu ma dem rek xamoon naa ne dinaa fa dem ba ma nekkee xale dëkk bu ma def rek xamoon naa ne dinaa fa dem dinaa fa jëlee lii ak lii loolu nag si suma maam dem si yàlla yàlla na ko yàlla yërëm te xaree ko àjjana yooyu yépp moo ma ko doon wax waaw yooyu daal. koo gisoon ba noppi. dama koo gisoon ba noppi mu nekkoon loo xamante ne neexuma woon nag. mosuma hmm. bëgg toog di bind. wala di joxe ay sunguf di ñaan mosuma bëgg toog di def loolu ndax responsabilité bu mag la sëriñ bi nit ñëw ci yow wóolu rek mu ne la ñaanal ma loolu sëriñ bi responsabilité bu mag a mag a mag la loolu dafay daw yaram ndax tey bàyyil na la responsabilité bu rëy a rëy a te nit ñi eh, dañuy fàtte lu bari dañuy fàtte yàlla mooy may yenn saa nit dina jaaxle ba jëw mbiram yëpp mu teg ci kaw sëriñ boo xamul nag boo muytul di nga ko def loo xamante ne yow yàlla dina la ci mere waaw mën ngaa jël ci kaw soxla bi mu am wala jaaxle bi mu am mën nga cee jël alalam wala nga wax loo ko walla nga def loo ko loo xamante ne yàlla dina la ci mere xam nga loolu responsabilité te alalu àdduna sëriñ bi dafa neex alalu àdduna dafa neex looloo taxoon ba mu ba mu jotee ba mu war a toog sax dem bëgguma ko woon waaye ala kulli xaal li ma wax sànq rek tajril umur ala maqadiri li yàlla teg sa kaw rek ci dara waaw man nag euh, feebar yu bari dugguma ci faj ko am ñoo xamante ne dañ dañuy faj hémorroïde dañuy faj lii ak lii feebar daal ñaari loo gën a bari laay gën faj mooy ndoxu siti ak euh, ak kii nii ak euh, biir estomac yooyu daal am na ay tegtal yu mën a ci def daal boo ko defee yàlla dina def sutura euh, ci wàllu ñaan bi nag li ma gën a jëme nag wàllu ubbeeku la ak kaaraange euh, fas dama ko mën trop takk nit ba doo ko laajee mu jox la li ma la doon wax sànq jaa xam loolu ci xeetu jabar la bokk bokkul ci xam-xam wala alxuraan alxuraan dañ ciy def loolu dangay ngay génn xaatim wala nangam nangam nga def ko ci waaye yooyu ba tey zulmaan yi la rek waaw yooyu dama koy def waaye duma wax duma ko defal bani aadama waaye dama koy defal ku ko yelloo koo xamante ni tey jëkkëram dem na bàyyi te ni mu koy demee kenn mënu ci fen ndax boo waxee bu ma seetee dinaa xam walla sa jabar dem na boo ñëwee nga ne ma kii dama ko bëgg takk fekk caaxaan nga koy doyee dina ko xam du ma la defal dara wala koo xamante ne doomam dafa topp di naan bàyyi abandoni kër gi kooku dinaa ko fas ba mu ñëwaat toogaat ci kër gi delluwaat ci yàlla jaamu yàlla loolu moom dama koy def ñaareel bi mooy nit koo xamante ne dafay tëju muy bëgg ci alalu àdduna bi sëriñ bi gis nga nit boo bëggee sa sa jaamu yàlla mat dangay am da ñaan yàlla mu may la mm-hmm. yonente bi da doon ñaan yàlla may yàlla nañ yàlla musal ci ñàkk yàlla nañ yàlla musal ci nay kon tey jii yow tey boo amee rek looy xalaat dem màkk est-ce que màkk ku ku ku ku amul lu mu lekk mën na faa dem mënoo faa dem boo bëggee saraxe est-ce que mën nga koo def boo amul doo mën a jàmm yàlla côté boobu génnee asaka li koy waral mooy nga am alal bu mu fekkaat fa déwén nga mën a génnee asaka te loolu lépp ay farata yoo xamante ni yàlla def ñu koo teg waaye ba mu ñu ko tegee nag nee na soo amee mais eh, kon ki nga xamante ne am na ba mën koo def moom moo lay ëpp confiance ak yow mi nga xamante ne amoo ko yàlla nag mooy jéggale moom mooy maye àjjana mooy def yëpp waaye nag jullit bi soo amee rek sa jaamu yàlla fa tabaarakallaahu day gën a dal xel daal way ñàkk yi ñoo ëpp àjjana waaw ñii ami milliards yi ñoo ëpp safara ak jigéen ñi waaye dafa nekk loo xamante ne ñooñu seen alal bu daaw ñu ci def lu baax daaw ñu si jàppale bani aadama yi bu ñu demee ba taxaw yàlla yàlla di leen xisaab si seen alal boobu naan lu tax defaloo woon lii de lu tax defoo loon lii waaye nga am alal bu set nga def Ousmane na mu doon def Ousmane mu doon Affan Omar na mu doon def Aboubacar jël seen alal yi di ko def ci jaamu yàlla yi du leen wàññi dara ñooñu moom sa alal moom looloo tax ma ne nit ku nekk da nga war a sàkku alal ndax Ousmane milliardaire la woon wallaay nit saan loolu lu am solo la Mhm. Euh, wax nga mhm. euh, wallaay sëriñ bi boo ma joxee tur ak turu yaay su ma nekkee biir oto sax bu la neexee duma ma teg plate bi def ay suuf wala di jënd ay téere wala di ñuy wax ay elmu nujum di calculer jaru ko soo jàkkaaloo ak man jarul sax ngay wax sa tur soo jàkkaarloo ak man dinaa la wax lu dul denc yow. waaw man maa la wax loolu lu ma tàyyeel la nag muy seet ndax nit loo gën a mën da nga koy tàyyeel hmm. euh, sëñ bi am koo xamante ne fi ñu toog nii fii lay liggéey ci saal bi dafa ñëw toog waxaguma ko sax waxuma sax lan moo ko yëkkati ma wax ko ma wax ko yu bari ma wax ko yu bari mu mu daw waaw waaye nag looloo tax du def faral di def loolu ndax ñun sénégalais dañu ragal dañ naan kii mbaa fekke ma jinne wala kii lan la mu may wax te waxaguma sax sama tur looloo tax nit ki bu ñëwee rek dinaa ko defaral li nga xamante ne dina dal xelam loo xamante ne fitam dina toog ma wax ak moom ci yooyu waaye ala kulli xaal bu dee gisuma la soo ma waxee sa tur ak sa tur yaay dinaa la wax lu dañ ci yow su dee nag dangaa toog bu la neexee nga wax sa tur wala bu la neexee bul wax waaw ndax loolu moom bu dee loolu dëgg la di nga ko gisal sa bopp mu dee du dëgg di nga ko gisal sa bopp. Mhm. mais am na seetkat yoo leen gis. ah sëñ man de ba ma dalee seet ak de mosuma seetal ne gisuma ko hmm. waaye nag damay xam ne damay seetal ne nag ma ne yow naq naqaree gis ci seen nga xam naa dama koy xam hmm. yow ku naqaree gis ci seen nga loolu moom xam naa ko waaye man ma seetal nit rek gisuma ko dara dara ba ma ne la bàyyi ko gisuma la non loolu moom dalagu ma waxuma nag duma dal waaye loolu moom mosuma dal li ci gën a bari moom dama lay seetal gis la waaw waaw mën naa laa seetal wax la baat yu néew te sëriñ bi lu ma la mën a wax ci àdduna di nga ko tegal sa bët ci tele bi laa nekk euh, invité nañ fu fu bari waxtaan naa ku ma mës a seetal ma ne la lii dina am te amul nga na ma na ma woo téléphone sama numéro dina nekk foofu bu ma sax jërëm na ma wax yow doo waxkatu dëgg wala mu ne ma fenkat nga lu ma la wax di ko gis yenn saa nag nga wax nit loo xamante ne foogu xalaatu ko ci àddunam wala su wala bàyyiwu ci xel walla loolu tax koo jóg mu weddi waaye man du ma werante dama lay bàyyi rek di ko gis day woote waat mu ne li nga ma waxoon am na Mhm. wala mu ñëw ma ne la diw sa jëkkër nangam walla fi ngay liggéeyee nangam ak nangam lii moo am te loolu gisoo ko ci nit kooku da nga naan kooku melul noonu mais da nga damay noppi rek ñëw li ma la waxoon di nga gis si moom ndax nit xamul lépp nit dafa lëndëm. Euh, leen waaw loolu dañ koy seet ba xam fu mu nekk dañ koy seet ba xam euh, defa feeñ wala dañ ko jaay bu dee leneen ak leneen waaw waaw loolu dañ ko ci seetal te am loo xamante ne dañ koy def bu dee sànkuwul duggul lu mot ñetti loxo mën naa kooku mën na koo andiwaat bu dee luñ jël la mën na koo dee xes na ba dugg ñetti loxo nag loolu da ngay sonal ki ku jëloon day sonn. te bu demee ci kii du ko gis bu demee ci kële fekkee sànq na ko mën naa sonn waaw bu dee ci benn loxo boobu ak kooku jox ko keneen mën naa dem mu jëlaat ko fi mu jëlee woon looloo tax bu xasee ba dugg bu ñu xoolee ne dugg na ñetti loxo rek duñ ci duñ ci mën a sawar a def ndax day sonal day sonal ki ko yore. Uh-huh. Euh, waaw fas de sëriñ bi fas moom ñaar rek ci tënk mooy bëggloo nit ki lu mu bëggul woon wala bañloo nit ki lu mu bëgg woon comme yow mii nit ki bañ na la nga fas ko mu bëgg la fekk def laa bañoon walla mu bañoon la wala mu bëgg la walla mu bëgg cigarette nga fas ko mu bañ cigarette xam nga loolu la rek loolu lay fas te jëm ndax nit it booy soxlaa ci moom dara bëggulaa laa jox bëggul joxe mais mën nga koo fas mu bëgg la mu bañoon bañ na déet du ma la jox un nga xam ne kii da nga ko soxla nga fas mu jox la kon nag bëgg bëggaloo nga ko lu mu bëggul woon loolu rek mooy fas bëggloo nit ki lu mu bañoon wala bañloo nit ki lu mu bëggoon fas si loolu nag lay dox mais nag yow yaa xam nag lan lay doon ci wàllu alal la wala ci wàllu nit la walla ci ci yeneen i mbir daal yow yaa xam rek loo ci jublu waaye ñu ñaar yooyu moom mënul génn foofu. Mhm. ba fas waaw fas nag bu dee man sama wàllu bopp ndax bu dee xëccoo place day fekk nit ñu bari la te jarul ngay joxe ay tur nit waxal fan nga koy xëccoo rek bu dee fi nga koy xëccoo la boo ko waxee nga quatre-vingt-dix-neuf tàndarma nga koy booleel euh, sëriñ bi loolu boo ko defee benn leneen li li ñuy bind da ngay suul benn bi nga sangu benn bi boole ko quatre vingt tàndarma sëriñ bi loolu ci te te boo jotee place bi ci kaw nga jëm waaw loolu loolu loolu loolu xëccoo boobu sax dafa doy waar tuuti li ko tax a doy waar mooy. Hmm, dangay am li ngay xëccoo ba pare dangay ngay kawe foofu doo fa tuuti. Mm-hmm. Mm-hmm. boobu ci beneen façon garab la boobu du sax ci suuf ci kaw garab rek lay sax. Mm. koo fi gis muy dem ci diggi làmb bi mu taxaw yëkkati loxoom mu taxaw ci xeer yëkkati loxoom buñ koy sàng kii bi mu yëkkati benn loxo bi garab boobu man maa ko ko jox. kooku ba àdduna tukki bu dee combat def na ko mënul daanu. sëriñ bi kon yow bu mhm. mhm. waaw loolu bari loolu bari yàlla moo leen jox ndam yi ñaan nañ ci man ñaan nañ ci yeneen yeneen sëriñ waaw waaye li ma lay wax de yow mii mënoon ngaa wuti dara. wala loo xamante ni da nga ciy bëri nga jël garab boobu nga sangoo ko nga yëkkati sa benn loxo taxaw fu nga bañ a taxaw ci suuf ci xeer wala ci baa nga sangoo ko dama la ne bés boobu nit mënu laa féeti ka su kaw jamais xam-xam man maa la wax loolu loolu bu dee mbappat bu dee ci mbappat la bu dee lu ñuy xëccoo leneen dawal welo la bu dee football la bu dee leneen loolu mënul nekk am na beneen boo xamante ne da ngay tibb ci suuf bi dangay ngay tibb ci suuf bi boole ko li ma kii nga sànni ko nga sànni ko boo tibbee ci suuf bi bu dee fi ngay fubalee walla fi ngay kiyee mm. fi ngay bëree nga tibb ci suuf ji sànni kii nga dëgg ci kaw nga dëgg ci kaw suuf boobu mm. jeex na kooku danga koy dëgg ci kawam rek mënul fexe ba mu féete la kaw mënul loolu loolu mënul nekk xanaa moom xanaa moom mu mu def loolu waaw fas bi aussi mhm. mën na ci dara. waaw fas bi mën na ci dara waaw fas moom dafa gaaw ci loolu waaw ndax euh, ku mënatul jubóog soxnaam euh, dañ lay fasal euh, ci bii nii caasu nag la hmm. waaw caasu nag bi am na caasu golo nag mais waaye man caasu nag bi rek laay liggéeyee ndax lii ci lii lu set la nekkul loo xamante ni tilim la caas bi boo ci fasee nit ci jat yi nag ñooy soxor waaye caas bi soto soxorul caas bi moom boo ci fasee si tifliwoo ci dara du bàññi nit bi dara waaye jat yi ñooy soxor jat yi moom am na jat yoo xamante ne boo ko defee ci ci fas bi dafay xaw a diis ci nit ki nit ku dëgër bopp rek am yoo xamante ne danga koy def seen diggante dafa ne mm-hmm. Mm-hmm. xam nga am koo xamante ne dafa abandonné dem it da koy fas te mu takk wala mu def fi muy tëdd kooku dina ñëw tëdd ak moom for ci kaw lal tëdd ñu bokk lal daal maanaam. lan la mën ci kooku duma ko jox fas. kooku dama koy def li ñuy wax luccital luy pël di wax luccital luccital day mel ni ngénti e, tojal yaram bi lépp lu fi nekk sëriñ bi liy tëj liy tëj bani aadama ñeenti mbir yi benn bi nga am gaaf nga nekk ak nit koo xamante ne jiggantewu ñaareel bi nga am cat cat moom cancer la baaxul day yàq wala ñu liggéey la wala nga am rab ñeent ñii ñooy tëj bani aadama looloo tax damay faral di wax nit ñi dañu naan man cat rek cat rek déedéet raxasal ci yaram ci yépp ci ñeent yooyu yaramu bani aadama bu setee rek nga ubbeeku loo am ci ubbeeku nga am ci boo raxasee sa yaram ci loolu nga wut li ngay ubbeeku ba pare nga am kaaraange boo xamante ni yàlla dina la aar ci ñeent yooyu di la dugg man nag liggéey moom duma dindi liggéey dama koy delloo rek dindi liggéey encouragé ki ko defoon la hmm. waaw ndax gis nga bu dóoree tànk mu yeewu tànkam damm déet du du liggéeyaat nit pour damm tànkam bu liggéeyee nit pour mu accident mu yeewu dem accident ñaari tànk yi damm kooku du demaat sëriñ hmm. pour yàq bëtam wala mu yàq liggéeyam mu dem mu ñu dàq ko fi mu ko liggéeyee kooku du demaat sëriñ boppam lay tànn hmm. waaye nag soo ko dindee liggéey bi nga bàyyi ko mu dem denaan sëriñ bi mënul day demaat ci beneen sëriñ danga ko koy delloo man noonu lay def man duma dindi liggéey damay delloo rek waaw waaw. bu dee mhm. bari na man nag sama càngatu cat bi ci gën a bari benn bés rek nga koy sangoo nga tàggoog cat bi. Hmm. waaw am na am waaw waaw am na beneen sax bu gën a neex boobu danga koy booleek ay goro. guro yooyu boo ko sangoo guro bu xonq ak guro bu weex saaboo boo yeewoo rek nga sàng ni sànni benn guro bu xonq bi sa ginnaaw nga ne yóbbaale lépp lu bon lu nekkoon sama yaram nga sànni mais mais droite gauche nga sànni guro bu weex bi sa kanam sangat boobu dafa am day raxas ba pare da ngay am dafa weex amaan na boo xamante ne xeer lañ koy booleel boobu it day raxas yaram ba pare dafa am kaaraangi ndax kenn kenn nit lu mu mën a lekk lekk nit mënoo lekk xeer mhm. mais beneen bi am guro yi moo gën a weex xam nga sa sangat dafay am yu weex am yu ñuul mën ngaa të ba ba ba nga tële sax am alal të bu looloo tax muslaay dañ koy seetaat nit mën ngaa mucc mucc ba mucc ci alal bi boobaa du baax kon nag musulaay da ngay xool yoo xamante ne yu dëgër la waaye nag yu weex lay doon waaw nit nekk luñ la jox nga sangoo. beneen mhm. nga ci rab mën naa see joxe tegtal sax benn garab bu ñu naan géloo nga boole kook aaya bi wali suleymaan ar riix xuduwuha shahrun wa rawaaxuha shahr wa arsalna lahu ayna alqitri wa min aljinni man yaamal bayna yadayhi bi izni rabbihi wa man yaziq minhum an amrina nuziqhu azaba sair boobu nga bind ko onze fois nga bindaat faxruj minha fa innaka rajim onze fois nga bindaat fa samaai wa taariqi onze fois nga boole ko gëloo gi boo xamante ne yaa ngi ko jëndee yàpp ak xorom boo ko defee boo ko sangoo rab bi onze jours nga koy sangoo sëriñ bi hmm. bu sëriñ bi ragalul dindi rab bi pour rab bi ñëwaat ci moom loolu amul ku koy sangoo ci àdduna rab bi dekkaat ci yow loolu rab loolu rek la ragal boo ko sotti woon tey jii kër gu ñu dëkk xam nga ñun suñu kër yëpp ñoo am ay jinne yu tudd amir kër boo balaa ngay sënc ñoom senc nañ dugg waaye ñoom duñu ay yàqkat hmm. mais dafa am ay rab ay ifrit ñooñu ñoo xamante ne ñoom ñooy yàq bi da topp mel ni faru rab yooyu noonu yooyu ñooy yàqkat yooyu boo ko defee wala jinne dugg kër di yàq boo ko fa tuuree da boo muy tuur sax di nga dégg ay bruit ndax loolu rek la jinne bi ragal. Mhm. bu bu dee liggéey la. da ngay bind man na kasafa innama yankusu ala nafsihi loolu kaaraange la ci wàllu liggéey nga boole kook euh, guy boo xamante ne dafa rey nit guy bu rey nit sëriñ bi garab boobu boo ko sangoo ku jëkk ci yow gis musiba am na noo koy dindee nag guy bu rey nit danga ciy génn mooy maanaam guy bu rey nit nit yéeg ci kaw guy bi daanu dee loolu am na loo ciy dindi ku la laal musiba daal ko day dee bu dee def laa bëgg rey lu mu bëgg ci yow rek loolu moo koy dal loolu sax dañ ciy dindi ubbeeku te loolu dafa kii ndax guy bi ku fa romb rek danaan feere diw deewee hm, da nekk nit ku ñu xam te nit koo xamante ne dañ lay xamee lu rëy lu am am am bu ndax guy dafa tuutiwul waaye it boo am na amoon boo koy dindee moom ku la laal musiba daal ko. Hm, hm. beneen bunt bi ñuy mujjee wax nga ko sànq mooy wàllu ubbeeku ubbeeku ki nekk ci place ba nga yëkkatiku ca kaw wala ki nekk euh, ci benn business bëgg business bi jëm ca kaw. Mhm. wala koo xamante ni sentir na ne daal am amam war naa yokk war naa ëpp lii kooku noonu lan moom mooy solution bi ci moom. Euh, sëriñ bi mooy njëkkee ci. si wàllu am am nit ki balaa ngay mën a def dara nga set sa yaram set ba nga xamante ne desewu amoo cat amoo rab amoo liggéey amoo dara loolu dafa yombal am am euh, ubbeeku dafa bari ay façon am yoo xamante ne sëñ bi balaa ñu la koy defaral il faut nga joxe sax nag wala ñaa gëléem ak nag sëñ bi gis nga alal dëgg dëgg soo ko bëggee da ngay def sarax bu rëy boo bëggee nag alalu marché yi nga yeewu am cinquante mille cent mille am fi un million am yooyu am na garab yi boo koy sangu léegi de sa yaram bi day neex waaw am yoo xamante ne kii mais am loo xamante ne dañ koy jëlee si si boosu gëléem mooy affaire bu bu bu taxaw noonu ci kaw gëléem bi gerees boobu bu dee seen nag xam nga béjjunu nag ci kaw rek la jëm ak béjjënu ñaari béjjënu nag yooyu cat yi sëriñ bi doo am lu tuuti tobb daqaar nga koy booleel ak bukkiwaay bi jàmmi mooy guy bu boor Dakar daqaar dafa safti guy dafa rëy sëñ bi doo xam nit ku ndaw doo am alal bu ndaw man maa la wax loolu sëriñ nag bu dee amul benn dërëm amul kër mun laa ñaanal kër amul oto xanaa kay am na sëriñ yoo xamante ne de man sama maam moom bëggul woon ay kër yu rafet waaye moom la neexoon waaye koo xamante ne dafa lijjanti bu sonn ñaar na ñaan na terrain ba sonn ñaan ay oto ba sonn ñu koy rejeté nga mu ne la dama lay nga am oto waxul dëgg ñoo xamante ne nag ci ay ay kër yu doy nga leen di fekk moo leen neex bëgguñu ko day fekk am nañu leneen li li leen bëgg waaye sëriñ bëgg dara mënu ko am mu ne la di nga bëgg dara mu defal la ko waxul dëgg kon nag looloo tax ma ne la euh, ubbeeku def baax man mii de wax dëgg yàlla damay sangoo loolu ndax tey boo bëggee nit nit di jàppale nit ñi dangay def sa yaram loo xamante ne boo béyee mu nangu soo jaayee mu jar soo politiquee nit ñi wuyu la soo defee sport nga am ci ndam ndax bind yi sama bopp laa ko bindal gis nga yii lii nii li fi nekk suuratu waaqi'a la ba mu nekk cent soixante onze cent cent soixante quinze mooy adadu fidda fidda ci arab mooy xaalis xaalis boo ko bindewoon boo ko boo ko déchiffré da lay jox cent soixante onze fidda danga koy boole bokki waa jam mi mooy guy gu boog daqaar ak tobb daqaar tow naaxi daq euh, jam mi nga xool ñetti fan boo ko xoojee ñetti fan ba pare nga doog ciy def parfum bi nga ciy def ak xorom ak suukar nga doog koy sangoo sëriñ bi dangay am te li ngay am du tuuti nit ñi dañ lay bëgg dangay saf nit ñi nit ñi dañ lay bëgg te di am te di ngay am du tuuti waaw man maa la wax loolu boo lijjantee doo am man nag mënumaa ñaanal ku kaw lalam da ngay jóg soo jógee rek boo lijjante waaw waaw di nga am moom waaw am na yeneen am na yeneen ak yeneen yoo xamante ne ay mbir yu bari la xejul fii ci waxtaan bi waaw. man li ma bëggoon wax maanaam wax nañ ci yu bari e, nit ñi nañu farataal di weer di tudd yàlla di istighfar astaghfirullah nit ñi nañu farataal bu ñu jël sunguf yi rek nañu xool ay sëriñ yu yu maandu sëriñ yu ragal yàlla ñu leen di duggal xalwa ñu leen di ñaanal kilifa yépp seen xalwa seen mbir si xalwa nag sëriñ bu ragal yàlla moo ko mën ndax werd yi dafa metti nit surveille wu la yow doo nga si néeg boo moytul rek di nga tëdd nelaw boo ci dagalee loolu moo gën a gaaw faj xaaju ci àdduna sëriñ man maa la wax loolu mënoon nañ la see waxtaanal ci yu bari ci mbir yiñ ci def waaye nag day mel ne dañuy woo nit ñi si kaay ma defal la nangam déedéet waaye dama koo waxee ku nekk am nga koo wóolu soo amee koo te nga bëgg sa xaaju faji del bari looy def defal sa bopp xaloo wala ngay def lu xaloo lu am solo la ndax man dama see seetlu musuma koo def benn fan ñaari fan xaaju xaaju nit bi fajowul donte sax bu ma ko yéenee juróom-ñaari fan loolu la ñuy baalu àq ñépp di baal ñëpp àq di ñaan yàlla defal ñu jàmm ak xéewal di ñaan suñu mbokk ji nga xamante ne nit ñi dañ leen di tàllal loxo di leen ñaan nañu dellu ci yàlla ñu ragal yàlla ci xaaju nit ñi ñu ragal yàlla ci siini alal yi ndax euh, yàlla nee waroo lekk loo moomu waroo lekk lu la lewul loo mënul mënoo ko loo xamul xamoo ko képp di nga li nga war a jot si sa àdduna di nga ko jot macha allah ñu bàyyi xel ci loolu wasalaamualeykum wa